flaak ñëpp ñu ko dina wax ana ana bu bees bi a a euh, ana bu ñu jógee si bak seen am sang-sang yi di wax dama bëgg dama bëgg ngeen dégg mu ba baax si maanaam si wal Seck Wally Seck si àdduna lu ñu def si àdduna daan woo leen Ouzin Keita waaw waa staff Wally Seck bëgguñu ma waa staff Wally Seck am ñoo xam ne bëgguñu ma si àdduna am ñoo xam ne mënu ma supporter am si àdduna Wally Seck mu ko jox bàcc ñu koy manqueel moo tax démb ñëw ma dégg naa lépp Ouzin Keita yéen xaw a soxla fa man soxla ma waaye sama sama frère la sama sama sama sama mag la bu nekkee mbokk sama jarbaat tax ne yaayam sama mag la kon tey man soxla ma si àdduna dama bëgg dégg bu baax bëgg ay dag yaay Wally Seck saa xew le daan woole leen Ouzin Keita ay saf mu Wally Seck bu kenn ne Ouzin Keita Wally Seck jot moom dara sama frère sama lépp la Gambie passé dama faa wàcce toj fa Gambie daaw toj Gambie ñëpp naa Ouzin Keita Ouzin Keita lu mu def si wàllu waale waale bu doon xoolee bu ma nekkee seenam boo xoolee bëri may xool nga xam ne kaam li bëtu mbëggeel la mbëggeel boo xam ne boo xam ne la dama bëgg ngeen dégg mu baax a baax bisu euh, Biggi Pata dama ne war naa Ouzin Keita may coupé man du ma coupé kenn Biggi dama bëgg baax a baax Biggi Pata nit ku baax du seetaane Biggi Pata nit ku baax du naa fekk Biggi Pata dama bëgg nga dama bëgg nga dégg mu baax a baax sa pataawaay say lex say fàmb sa pataawaay say lex say fàmm say fàmm nga ma ni rompay jur dama ngi ni mu baax baax man Ouzin Keita bigi pataa bul fàtte démb da nga fay da nga fay ba bigee ba nga fayee <laughs> ba nga bëggee tàkk dama Ouzin Keita kan invité émission maa dafa émission da nga far nga tàkk ah man daal maay man seen bañ a ma bëgg ku ma xóoyee xóoyee ma ba mu neex ma bu bu ma xóoyee rek ba ma nga sàmm sa xaj maa ko nangu Ouzin Keita beneen façon Ouzin Keita Ouzin Keita dañ xam lañ xam si Ouzin Keita mu ñëw di xeex ba ma xuloo xuluma xeexuma xuluma waaw maama sama laam ku ma def danga ma def jàmm ku ma defu jàmm nag digg si comme Fatia moom ngi dig bu baax baax si xel Wally Seck ku baax la estafam ñoo bon ñaan bugg aay la rek yaa estaf Wally Seck ñu ñaan mënuma supporter ba ma ànd ak Wally Seck jeuné ba tey ànd moom ànd moom tunu européen ba tey seen xol dafa dagg waaye yëngal si àdduna man Ouzin Keita ba ngeen deel dégg Ouzin ba tey dix ans yaa ngi dégg Ouzin Keita ba tey Ouzin Keita mooy Ouzin Keita kon boog def li ma yàlla def ma noppale ku ma def yaay ma yàlla def nank ba jaaxle leen eh dama bëgg di dégg mu baax a baax Wally Seck baax la comme yërmande ay safam ñoom ma mënta supporter du ma yëgal dara baa bu nekkee ba fin ba ñëw ñu may manqué dama nangam nangam dama bëgg ngeen dégg baax a baax nit ki bëgg yaa ma ko def si jàmm xam nga lu baax ndax tey jii dama am ñaan waayu sama yaay ñaana ma ba gën àll sama baba ñaan ba gën àdduna dama bëgg ngeen dégg mu baax a baax Wally Seck deful dara ku ma bëgg la Moustapha Diop ñoo ñaan